zéro. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julli bi ñu ngi leen di ziar bu baax ñoo ñëwoon fii tey ci Touba Argentine TV ngir barkeelu ay xasaayit jëm ci màggal gi. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman man sannani xayra xadimil Mustafa فإنني أخدمه بما استفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما استفى أخدمه إلى دخول الجنة daaril xaraari wal muna wal minna man zanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada faxarrahu dalaalu wal idlaalu yanxaadu li min hubbihi alxalaalu مدعت قبل لدى لبرولي مدحا وانا عن مثله كل ولي مدحت قبل لدى ما ينبا مع عيوبي وكف سنبا مدحته عند أناس قلوى مدعا كفاني العدا وبلوى مني إليه خدمة قد لا سمات روضته إلى الخيام عزمات رضي عني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أحلاني رضي عني سبته أبو حسن عليه ردوان يخلد الحزن رضي عني سبته تيجاني عليه ردوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة هستورد المحربين مدبا من لم يكن حني يردى فالكريم ردي عن يردا ليس يريم جسلي لا المصطفى خير جساء كما تخبلا ووعدا أنجسا صلاة من كرمه يلخاني على الذي دون المراء الخاني آمين يا رب العالمين bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu taala ala sayidina mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman ma wax la waral màggal ga nga xam ni cheikh bamba rëyal demam ga déglul ma wax la waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba réyal demam ga déglul ma wax la waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba réyal demam ga taarix ba ma jëy sin mooyaat ma moo di lalug sëriñ Basiiru mbég ma taarix baa ma jey sa mooy at ma moo di lalug sëriñ ba si rumbeg ma taarix baa ma jey sa mooy at ma moo di lalug sëriñ ba si rumbeg ma nee la yàlla defaloon kalima fii dëri defal ko Ibrahima keroog la bur yàlla farataal tabaski ak tamxarit may na ko gaay mbàkke bi xidmatil xadimi lil maxdumi fil baari farlu leen ila tanzimi taarix ba ma jëy sa sin mooy moo di lalug sëriñ Basiiru mbég ma yaa soppu Bamba yaa toppu bàmba yaa jaamu Bamba ba jeex ci bàmba bilaay amoo maas yow yaay boroom xaas ku ñëw nga jox paas rijaalu Bamba barke borom Touba noo ngi siyaara bu baax a baax a baax ngir ñëw gin ñëwoon fii ànd ak waa Touba Argentine TV ngir waajtaayu màggal Serigne Touba gi ci Argentine TV ñu ngi leen di siyaara bu baax a baax a baax di soññi tuuti rek ci màggal gi ngir sëriñ bi fonk gi mu ko fonkoon ngir daana wax ne fu ci ñaar dende kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk ki koy ñàkk fonk du gis ki koy fonk du ñàkk a gis lu mu tiime ko fonk ba faaw kon nag nañu dollee xam ne bis bi moom mooy suñu bis mooy sunu mbég ngir sëriñ bi moo ko waxoon ni képp koo xam ne sama bég sa bég la bu bis bi ñëwatee fépp la mën a fekk ci àdduna nag ma ci santale yàlla ngir ci lim ma defal kon nag nañu fonk màggal gi bu baax a baax a baax di siyaara mbokk yi fi teew yëpp sëriñ góor a wax dëgg yàlla ak waa Arzane moom mu jiitee maam tele bi ak ñu mu àndal ñëpp ak Gambie mii ñu ngi koy siyaara bu baax di ku baax di leen ñaanal suñu borom barkeel leen te defal leen tawféex ba liñ ci yéenee am bëgg lépp suñu borom defal leen ko ci barkeel sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu